présenté wu. Euh, man la Ndiamé seen président Diankhène artiste comédien metteur en scène dëkk Thiès. Euh, Ndiamé Thiès 24 am mbégte di la dalal laaj bu njëkk bi mooy Ndiamé lan moo la indi ci théâtre euh, théâtre moom véritablement balaa maa tontu sax damay commencer par remercier leen ci choix bi ngeen porte ci ma modeste personne invité ma ci seen plateforme bi xam ne nit ñëpp ñu ngi koy seetaan di rafetlu liggéey bu sell bi ngeen di def euh, ma profité ci encore di souhaiter à tout le Sénégal à tout l'Afrique et à tout le monde euh, bonne et heureuse année 2017 euh, atum 2017 bi nekk atu mbégte atu jàmm atu bànneex atu boole xol yi defal ñu lépp loo xam ne nii lu ci waay bëggoon rek yàlla na la ko ci yàlla defal donc euh, ma bëggee tontu ci sa laaj bi théâtre moom dama ci ñëw nii rek ndax euh, dañu nekkoon euh, collège nekk ay sixième nekk ay boy yu terrible ñu toog benn bis rek ñu ñëw surveillant bi ñëw ci classe bi ne ñëpp ñi bëgg a def théâtre nañu bindu ku bëgg rek yëkkati sa loxo après gars yi yëkkati yëkkati rek man it ma jikkati sama loxo ñu ne ah ñu bind ñu dem alors c'est comme ça ñu nekk ak le professeur Mohamedi Kaba au collège du Diaw mu yor ñu ñu def fa théâtre ñu def fa théâtre foofu nag la ma théâtre bi duggee après ma ñëw ASC Jaxaaw bi ma ñëwee ASC bi ASC Jaxaaw commencé théâtre donc ma nekk président commission culturelle nekk président commission culturelle ba mu yàgg ma dugg ci commencé di kii après ñu créer saadaaro woo si jël si ñu doon ñu fekk si foofu Sadaro mbay feu saadaaro mbay yal na yàlla yokk ay leeram euh, jël si ñu di ñëw ASC Jaxaaw fekk ñu fa jël si ñu yóbbu ñu kalom ñu nekk kalom nekk kalom ba mu yàgg après ci la ñu créer Ndumbelaan man ak ñoom góor gi ñing ñoom Samba Ndiaye Jules Dramé Alioune Sow et cetera et cetera bari woon nañu donc ñu dem dem ba mu yàgg après ñu créer les mamelles de Thiès union culturelle des artistes les mamelles de Thiès mu nekk fi aussi def fi ay affaires yu bëree bëri def le paris de l'ancien bu Sada Wende feu Sada Wende Ndiaye ak ay production yu bëri après ba noonu nag la ñu créer nag maintenant jànqeen donc mais avant ça aussi il y avait regroupement des artistes dont j'étais le coordinateur aussi euh, <coughs> jël nañ fi ay pièces euh, def ak moom ay tournée benn pièce su Sada Wende def nañu ak moom tournée nationale aussi euh, sous financement du du donc véritablement noonu laa ñëwee ci théâtre donc ça m'a permis vraiment ma nekkaat beneen nit ndax daf ma façonné waat ndax j'étais très nerveux j'étais très nerveux je n'acceptais pas la contradiction mais théâtre ci boppam moo ma indiwaat avec euh, toutes les formations nag yi ma ci def j'ai fait des formations au niveau de Dakar et partout ak de grands metteurs en scène donc ça permis vraiment ñu gis ne ASC Jaxaw boobu nga wax ñu bari ci Soleil Levant aussi jaar nañ fa léegi naka la def ba ñi ñi féete Soleil Levant yow nga féete jànqen tasaaroo boobu nu mu demee waaw waaw euh, euh, euh, ñun ñëpp ñoo nekkoon ñun ñëpp man góor gi ñi ñoom Samba Ndiaye ñoom Vieux Ba ñoo nekkoon ASC Jaxaaw ñoo nekkoon fa ak ñoom Maam Cheikhou ñoom Kader ay ñoo ñëpp donc ñu nekk fa di liggéey di liggéey ba à un certain moment il y a eu la création des mamelles ñoom góor gi ñi ak ñoo ñëpp nekkoon fa aussi ak ñoom maam Cheikhou maam Cheikhou ñoo nekkoon booy ci bi ñu nekkee euh, Mamel ba après maintenant la création de Jànqeen man ma dem Jànqeen ñoom maam Cheikhou dama leen daan invité ñu ñëw jouer si foofu jouer Jànqeen def na deux production ak Jànqeen donc et noonu lañ bëggoon def ndax moment yooyu dama ne woon c'était pas euh, c'était pas euh, sérieux que ñuy wone rek ñi nekk ci Jànqeen il y a d'autres fils de Thiès yu mën a teer ñu war leen aussi wone loolu moo taxoon ñu woo ñu woo ñu woo Sanex woo nañ fi Sanoxo et tant d'autres yoo xam ne ak góor gi ñi dañ leen di invité ñu bokk ci production yi e noonu la noonu la affaire yi demee donc euh, ñoom tam après ñoom dañu créer tam euh, soleil levant de l'autre côté waaw. Mhm. Euh, njàng mi fan la mujj yem. njàng man waaw man nag première laa yem. dama dem ak euh, dama bi ma amee DFM dama dem def première après année ba ca topp euh, première ma am liggéey. ma am liggéey liggéeyu la. ma nekk Enda euh, tiers moon ci la ma feu Sada Wende ne ma est-ce que tu ne veux pas venir travailler à mes ndax booba ñu ngi liggéey ci ay ñu ngi liggéey lu bëri ci pièces yi le pari de l'ancien ak yeneen kiyam yëpp ñu ngi ciy liggéey. mu ne ma est-ce que tu ne veux pas venir travailler au, niveau c'était un projet projet d'éducation environnementale ni ko doon wax un espoir dans le désert un espoir dans le désert Enda Thiermone moo ko doon kii ak euh, Croix-Rouge donc on avait 26 villages au niveau de Thiès au niveau de la région de Thiès on avait des villages au niveau de Saint-Louis et et aussi euh, au niveau de la Linguère donc projet bi fii la loolu la nekkoon donc man maa ngi woon ci centre d'information de communication polyvalente donc. Euh, léegi après théâtre bi ci lan ngay yëngu. bon euh, man aussi euh, damay def ay formation léeg-léeg ñu woo ma ci ay formation au niveau du Sénégal ma dem milieu bi de man daal maa ngi ci milieu théâtre art bi waaw donc moom daal foofu laa féetale travailler feneen mënoon naa liggéey ci leneen mais j'ai préféré vraiment m'investir dans le théâtre après ci laa nekk ba léegi nii. wàllu production est-ce que yaa ngi ci ay projet fi mu nekk nii. oui euh, oui ñu ngi ci projet ñu ngi ci mbetteel bon mu ngi dox ñu ngi ci euh, présentement ni tey ñu ngi ci ñu ngi ci dix-septième tey le dix-huitième épisode bi di daw. Donc on est en, qui avec, euh, on est en contrat avec l'ARTS et on pense que ça va, ça continuer. ndax gis nañ gis naa ni man RTS gëm nañu gëm nañu li ñuy def. mais dañ dañ gis ni jànqeen aussi ni meloon ci terrain bi dafa mel ni fes gi bu fesoon daal fesetu ko mais loolu lan lan moo ko waral. mais euh, xam nga xam nga euh, tam euh, jamono day dem ba tollu foo xam ne nii dafay am ay mutation yuy am. loolu il faut ñu accepter ko il faut ma mën a accepter man ma nekk jànqeen jóge fi dem jouer Dakar ndax su fekkee jànqeen amul dara te ma war a nourrir sama famille il faut ma dem uuti ko donc les grands ensembles war na am mais il faut ñu mën a accepter nit ki tam ñeneen soxla ko mu dem foofu am lu mu fa def donc loolu loolu loolu loolu yoon la mais ñun avec euh, jànqeen tourné nañu tourné nañu benn benn pilote benn série donc dafa amoon tuuti lu ci desoon rek en même temps ñu tourné waat euh, tourné waat nañu ñaari ñaari euh, téléfilm mais itam desoon na tuuti donc tout la on va terminer sa et puis continuer le travail. mais Ndiamé théâtre ni muy doxee nii est-ce que nit mën na cee dundu réellement. Euh, si si sinon yan yan nan nga yaakaar ni lañ ko war a doxalee ba ba yëf yi mën a dox. bon théâtre bi moom. il faut ñu réfléchiraat ci li koy doxal ndax euh, léegi kenn mënatul a xam kenn mënatul a xam kan moo mën lii ak kan moo mënul lii léegi sóob ñëpp a sóobandoo ñëpp a je crois il faut ñu réfléchiraat ci ci ci loolu def ay journée d'étude réfléchiraat ci loolu ñun c'est dans ce cadre là la ñu réfléchiroon fii au niveau de l'ARCOS ñu ne nii ñu bëgg a bàyyi booy ndax chaque jour mu am ñu ñëw ne la grand ñun dañu am troupe bu bees ñu ngi dëkk sàngam ñu ngi koñ sàngam grand dañoo am troupe bu bees ñu ngi kii sàngam léeg ngay dox ci dëkk bi gis koo xam ne ni caméra bi mu yor nii lay day loolu mënoo ko proposer benn télévision ba mu teg ko boo ko tegee image day weex tu perds en énergie day perds sa temps perds sa xaalis te te après du am kenn du ko jël mës naa ko fi wax ay booy dañ ma mere waaw dañ ma mere ma ñëw ne leen euh, lii ngeen di def nii a caméra bi ngeen def télévision bu ngeen ko jox du ko jël ndax image yi du baax mënul dem ci télévision yi dañ ma mere mais après fu ne dem nañ fa fu ñu dem ñu kii mais dañoo dellusiwaat man ci man ne ma li nga wax mooy dëgg fu ñu ko yóbbu bu ko gars yi dugalee ne ma image dafa weex ma ne leen mais télé yi caméra yi du pour télévision donc loolu euh, kenn xam nga mënoo mënoo tere ay xale ñu former ci benn koñ ñëw commencé def seen production mënoo leen ko tere donc ñun li ñu mën a def pour dimbali leen mooy di leen dajale au centre culturel au niveau de l'ARCOS di leen defal ay ay formation sur les b.a.-ba du ñu xam ko ñu former leen tuuti donc loolu moo tax yéen booy yëpp ñu ngi génn ñu ngi émerger ay alsaan ay ay meles ay mañuux gis nga booy ni ñu émerger ndax fii dañ leen di dajale au sant culturel pendant des mois tous les dimanches ñu dajale leen fii de 9h à 21h liggéey ak ñoom sur des sur sur sur sur des modules donc loolu ñun dañu gisoon ne loolu solution la pour véritablement ñu mën a kiyaat donc da gis niveau niveau théâtre bi sax au niveau de Thiès fi mu toll loolu moo ko waral donc waaw comme léegi formation yi daan am noonu amatul donc nous nous avons eu de beaucoup de formation yu amoon sur le théâtre sur sur sur de de de grands modules donc loolu moo ñu permettre xaj na assise technique bi ñu am ñu am ko donc loolu il faut ñu mën ci profité xale yi tam xale yi mën ci. Euh, Ndiamé rôle yi nga interprété ban moo la ci gën a marqué ak lu tax. Euh, depuis ma doon théâtre nag benn rôle moo ma mës a moo ma mës a marqué mooy le pari de l'ancien le pari de l'ancien man maa nekkoon l'ancien donc. l'ancien nekkoon personnage clé wu bi mooy ci pièce su Sada Wende ndax l'ancien c'était le premier saltige du Sine mais mu dem ba màgget bi mu màggetee il a pris sa retraite léegi mu yebal benn jarba benn goroom boo xam ne nii jarbaatam bi mu yar ci kër gi moom la ko jox mais comme il avait fait son pari il avait parié waxoon ne day def comme som son son nayal day dund 11 ans comme son cent 112 ans donc pour loolu pour mu def ko il fallait dans sa euh, euh, dans dans dans dans sa tabatière en mu téye ci taw bi téye ci taw bi xam na ne le Sine va en souffrir ndax taw dootul am de années taw amul mu téye taw bi euh, jur gi di dee. garab yi di dee dara amatul kenn amatul loo lekk les autres saltigués dugg à la retraite pendant sept jours et sept nuits ils ont trouvé dans le bois sacré que l'ancien moo téye taw bi donc pour sa kenn ci ñoom ñem ñemul dem ci ñoom le premier saltigué c'était son rôle mu ànd ak ñoom ne leen góor gi bàyyil taw bi mais nee na sañu ko ndax goroom la te moom it moo ko jàngal sañu ko ba histoire am foofu si dans le bois sacré si saltige yi mais par la suite les gens donc sa femme l'a convaincu moo tax doole jigéen dafa yàgg ci société bi sa femme l'a convaincu ne ko lu mu doon doon sama nijaay demal wax ko li xew fekk na le fout du village moom moo nekkoon dans le bois dégg loolu dem nettali ko jabaru kii avant saltige yi di ñëw ce rôle là ma daf ma marqué ndax man dama dama liggéey pendant dama ko liggéey dama ko liggéey pendant plus d'un an donc quand bi ma joué la pièce ba mu jeex le feu Baye Gana jël la parole ba tey jete avec mon bateau fourchu sëgg nii mënatuma woon génn ci personnage bi toog naa une heure de temps mënuma génn ci personnage bi donc dama ko liggéey liggéey boo xam ne donc mooy rôle bi ma gën a marqué ci sama àdduna te defe naa dootuma defaat beneen rôle boo xam ne nii dina ma marqué noonu am na benn bu ko jege benn bu ko jege rek tuuti mais mais bii defe naa amul benn bu koy bu ko kii ni boobu rôle boobu la pare de l'ancien rôle boobu ni ma ni ma marqué amul yaakaar naa benn bu koy bu may bu may marqué noonu. Jaame benn anecdote laa bëgg nga may ñu ko bu reetaan lu ci sa ci sa ngone ci sa jeunesse benn anecdote rek. <laughs> non man nag dama mës a nekk xale bu terrible xale bu terrible laa nekkoon mbay benn jour dañu amoon benn. paa bu nekkoon sunu kër mu amoon rajo xam nga temps yooyu nekkee booy rajo yi rek boo bëggee déglu musique rajo ngay déglu ma dem nag di jàpp nee na damay jéem a jàpp rajo bi fu ma tourné rek di tourné rek xam nga onde yi onde yi temps yooyu ay ay fil lañ koy defee ma tourné mu sës ma bës rek mu ne teel dagg bi ñu ñëwee ñu xool ne kan moo def lii mu ñëw taal paa bi ñëw taal rajo bi affaire bi doxul ñu ne kan moo def lii ñu xool tànk yi ñu ne kii njàmme la fi may dawee rek ñu di ma dàq rek ma daw bi ma génnee daje ak benn paa sama xaritu papa ma daw rek mu tàllal ma loxo yi ma defe ne daf may kii ma ñëw rek ne nii rek il n'a même pas cherché à comprendre daf ma yenu ba ci kaw rek dóor ci suuf toog sama kaw di ma dóor di dóor ma ba ma xool benn place soog maa laaj lan nga def <laughs> mais loolu jusqu'à présent daf ma marqué paa bi daf laajuma lan laa def gis na daal ñu dàqe ma ci kër gi may ñëw mu tàllal ma loxo yi ma defe ne daf may daf may kii mu yenu ma damay sauver mu yenu ma ba ci kaw rek dóor ma ci suuf toog sama kaw dóor ma ba pare soog ma ne lan nga def <laughs> donc loolu mu nekk éducation boo xam ne nii dafa am solo loolu boo ko defoon tey su ma ko defoon tey doomu jàmbur boo moytuwul papaam police la may yóbbu mais keroog laa jaar laa ñemeetuma laa rajo bi ba fi mu ne loolu ci li tax ñemu ma yëfi jàmbur loo doon doon sa sama xarit boo ma abaloon sa oto bi du ma am fitu dawal ko ñemu ma yëfi jàmbur ci mais loolu moom la ñuy yooyu la mag ñi daan yare xale yi donc ñu war a dellusiwaat ci suñuy valeur mais ñun duñu ay tubaab individualisme bi individualisme bi la ñu war a dindi du ñu ay tubaab ay nit ñu ñuul lañu ñu war a dindi yooyu delluwaat ci li fi maam bàyyi loolu ci lu am solo la. Ndiamé sa kàddu gu mujj. sama kàddu bu mujj mooy euh, kontaan rek di ñaan yàlla seen euh, Thiès 24 bi yàlla def mu nekk tele bu àdduna yëpp bi gis ci kàttanu yàlla mu sampu Thiès ndax ñun cees rek la ñu am mën nañoo dem Dakar toog fa mais fii la ñuy toog fii la ñuy toog lu ñu mën a uuti nag feneen uuti ko ñëw mais bu guddi guddi Thiès. Thiès la ñu xam moom la ñu fi la ñu dëkk donc maa ngi leen di ñaanal vraiment yal na yàlla bokk euh, def ngeen bokk si télévision yu bee si ñëw ndax euh, xam naa ne euh, xaj na doole jee fi nekkul waaye xarañte geeg yooyu yëpp mu ngi fi ndax waa Thiès ngeen je vous remercie